beneen jàngat c'est le premier artiste africain no sénégalais du moins pas africain sénégalais bu joué ci salle boobu deux fois consécutif muy le 26 octobre 2019 le 10 juin 2023 donc ma gis ci benn travail d'équipe avec le même promoteur ah. tey voilà tey dafa dem ba ne euh, promoteur bi dafa ne bi daanaam diggante promoteur doxatul seen diggante mhm. man dama dem ba promoteur bi diggante liggéey ak fay ma doxatul suma diggante. dëgg la parce que amul ku may déplacé fii Paris te fayoo ma ma ñëwal la. la février bi passé artiste joué na Olympia maa ngi biir Europe ma ne ko temps nga may fay mu ne ma nangam ma toog suma kër kis ma su may jóg soxla ma ma ne ko kis ma li nga may fay kon donc dafa am loo xamante ni lu naturel la donc ma gis ci benn jàngat boo xamante ni la diaspora comment ils ont répondu la diaspora a répondu massivement parce que dama jàpp tey toxal bi ñu ko toxal mbirub suñu borom la ndaxte dama xam ñu bëre ñoo xamante ni jëndoon nañu seen billet jël seen hôtel ñëw fa te waroon liggéey waat leen di te ñëwuñu moo tax ma ne kis ma ñii tey suñ ko tëggoon le trois ñaata nit ñooy des ci bunt bi mhm. est-ce que xeex du am ba ay dee am fi mhm. donc yàlla moo xam li mu def donc je di que man dama ci jàngat benn esprit bu positif lañ demee mhm. li ma ci gën a marqué mooy bi ñuy installé wàccee sono bi di installé lumière yi xamewuñu kii mooy musicien xamewuñu kii mooy manager ñu kii mooy journaliste xamewuñu kii mooy couvrir muy bijou da nga doon yëkkati ay baaf kis ma mi organisé da doon yëkkati ay weñ Tange mi ñëwoon da doon jël ay fil. Mhm. kii di ñëw di branché caméraman yeeg njaga oro tout le monde été à l'intérieur donc loolu daf ma woon ni que un esprit réuni mhm. mooy gagné donc ñun ñëpp dañu ci demee woon xol kenn demeewu ci parce que wàllil wàll dañ ci demee pour le Sénégal Donc plus particulièrement, j'ai vu l'artiste. L'artiste c'est qui On le dit, c'est le chanteur du peuple. Quand on dit le chanteur du peuple, le peuple c'est qui man je dis pas le peuple sénégalais le peuple je dis c'est le monde entier mhm. tey ñu xam ni que y avait des Guinéens mhm. y avait des Maliens il y avait des Ivoiriens, il y avait des Congolais, il y avait des Camerounais. Mm. Je les ai vus là-bas à l'intérieur. Donc je me dis que dootul feetu Sénégal. Donc je crois que tey benn moment la boo xamante ni on était parti pour vendre la destination du Sénégal et on a vendu la destination du Sénégal. Comme il l'a toujours fait hein. Non, on a vendu la destination du oh. Sénégal cette fois-ci. Voilà moomoo di ñëw ci moom mi nga xamante ne mi ngi fi woon. ci ni mu ko dundee ci li ko tey da nga wax pression. Mm-hmm. et on n'a pas vu de pression envers lui. i on n'a pas lui, vu il va répondre sur la question. Voilà, on n'a voilà. pas on il va pas... répondre sur la question voilà. ce pression boobu. voilà euh, euh, say sensation say sentiment déjà ci préparatifu Dôme de Paris bi yow mi nga xamante ne yaay ndey bi liggéey. c'était bien parti sérieusement parlant. Ouais. c'était bien parti quoi qu'on puisse dire. ah. quoi qu'on bien parti ah. bi ñu ñëwee ba aéroport toppatoo nga ñu ni mu waree. képp ku doon musicien yàpp nga ko ci ni mu waree def nga sa liggéey ci ni mu waree man tamit dafa jël naa sama engagement ci ni mu waree. ñu egg si ku ci nekk manager def na la fi mu la war a def. muy njaga ak staff bi ñu ñëpp normal c' était bien parti répétition yi tout ça mais dafa am lu ko break li ko break loolu sentiment yi mënatul nekk lu normal il faut nga am xol bu naqari comprendre yàlla dogal ñu ñaan jàmm ba jàmm dellusi si jeudi affaire yi reprendraat diggante jeudi ak vendredi samedi moo doon affaire bi donc euh, pour man na euh, dafa neexoon ba ci yàgg mu dagg après mu continuer euh, ñu gis la le vendredi Wally nga xaw a émotif waaw c'est normal parce que. ci ban état d'esprit nga tolloon ba ba ngay tuur xewal ci rek. waaw bi may tuur xewal moom wax dëgg tey ma ko parce que sama xel dafa dem yarax ci suma papa. parce que moment boobu ku jege Wally wala nga mën sa jege staffam xam nga ni coono ngi jaabante rek. Bamba préparé ma kooku ci ligne bi. Euh, day jaabante ak euh, costume bi ah ñoogu xaa anama fu mu ne. xaa mhm. lum la jox encaissé fii xam nga ñaata billet jaabante. xam nga bés bu mag su amee. rajo préparé ma nga daan gis nit ki même chose. gisoo ko ça fait mal mhm. et automatiquement bi may jooy boobu maa ngi way wayam donc sama xel dafa sori sama xel dem ci moom et bijou jeudi vendredi samedi dafa mel ni dañ ma tegal lépp lu ma coon daan mës a wax papa coon lépp lu ma daan mës a wax dafa mel dañ ko teg suma xel. ci showbiz wala. waaw ci àdduna ni nga nar a dundee. li nga war a gis tu vois sama papa généralement su daan wax ak man ci ay télé la ko daan wax ay rajo xam nga li ma daan wax ak man face à face ni bëriwul mais bu lay wax day jaar ci digg bi du am du am. du waaw day jaar ci digg bi donc dafa mel ni dañ ma ko tegal seetu. mais est-ce que est-ce période boobu mën na jàpp daf la euh, euh, daf la manqué woon daf la manqué woon. parce que da ko da nga ko nam wala daf la manqué woon parce que da nga wéetoon ci situation bi ñu doon wax dafa war a annuler warul annuler ci ñaar yooyu ban la ci. non manquement Papa moom du deñ ci ñun parce que yàlla moo ko dogal te moom mu liggéey ko nag loolu du deñ ci ñun mais li mu ma doon wax yëpp moment boobu dafa dama ko doon dund. li muy wax ji muy ñëw ngay fàttali ay wax yi lay wax nga ko dund à à à l'instant même. parce que man soo xoolee ñi ma àndal maguma leen ñu bokk benn génération ñi ci bëri mat nañ ma papa ñii mat nañ ma nijaay xam nga ñi mat nañ ma mag ñëw ma jiitu ci aar ah ñoom ñëpp ku ci nekk day xool suma set ak suma dëgër laay pour mën a tenir jour boobu moo ñëw répétition da ngay gis ñi ñi laqatu di jooy ñi la xool di xool naka nga mel mais j'étais bien moi j'étais bien j'ai juste pensé à mon papa. mais si ban moment ci ci pensé ci pensé yi ci sa état d'esprit ban instant ak ban parole ak ban waxam moo traversé sa esprit ba nga jooy. waaw dafa dafa am benn wax buy wax mu ne man man du naa lu nekk ci musique def nañ ma lu nekk ci musique waa ji laaj ko lu tax ñu def la ko mu ne laaj leen ko xawma laaj leen ko kan. laaj leen ko dafa ne dafa ne man dund naa. lu ne ci musique parabole quoi. waaw dafa ne dund naa ci musique lu ne def nañ ma lu ne léegi comme ki wax ak moom moomu ne ko lu tax ñu def la ko mu ne xaw ma laaj leen ko c'est-à-dire ñi def doo xam lu tax ñu def te soo leen laajee lu tax duñ la ko wax. lan nga jàpp ne dañ ko def. I don't know beaucoup de choses beaucoup de choses. mais loolu mais loolu ci saa ci ci moment yi ngay xalaat loolu. doo fekk nga am loo yëg yow ci sa jëmmi bopp avant nga xalaat sa papa dafa yow fekk. dafa c'est tout à fait normal Abba mënu ma fi jógee ànd ak lu toll ci soixante-dix personnes. Mm. wala lu ko man mm. lu ko ok ah, ku ci nekk tàggu sa waa kër nga jóg dem responsabilité bi nekk sama dond sama ndodd lii ku ci nekk dama rendre compte sa famille. coono ngi nii waalee ngi nii. Euh, parce que dama ko doon dégg tout le temps mu ni coon rek a xam coon mais waali rek a xam waali da koy wax da koy wax dama ko doon dégg tout tout le temps seul waali kone waali seul waali kone waali mais ban ban ban moment nga xamee ni wala nga comprendre que ni affaire yi toll na fii waaw léegi euh, maa dafa wax dafa wax mu ne maa war a porter combat bi dafa ne waali mhm. su bëggee xool boppam na ma teg ci kanamam parce que maay miroiram comme seetu ban ci ay waxam moo la dédouané en moo la dédouané c'est-à-dire moo la delloosi mhm, mhm. il m'a di ñaari wax la ma mës wax sa papa ñaari la ñu mës a waxtaan waxtaan bu la wax nii sama xel mi ngi ci yow wala maa ngi lii yarew ñu ma noonu waaye na nga xam ni maa ngi lay topp même su fekkee sax dama faible mënuma dara nii mais maa lay topp tu vois xam nga lu mu ci tegaat ah. ne la euh, nit du xeexee kanam di xeexee ginnaaw booy xeex da ngay jàkkaarloo ku ngay xeexal donc ça veut dire que waale coup yi day jógee fu ne. baa bane donc c'est un boo xamante ni lépp lu ma wax tey maa ngi koy dund. bilaa walaay. ak sëñ Tuubaa. lépp mais tey tey Wally Seck euh, euh, euh, <laughs> voilà number one comme ni ñu koy waxee tout le temps nga def li nga xamante ne moom mooy doom de pare ba tey ñu nekk ci trajectoire bi nga xamante ne ci la ñu nekk. balaa Karajo du ñu may élément bi ñuy dugal ci ligne bi. Waly Dioy ñëwaat jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñoom ñooy orchestre bi ko papam bàyyil en quelque sorte en grosso modo ci li nit ñi wax Waly tey bu doon wax ci Ramadan lan lay wax. waaw Ramadan day yàlla moo dogal suma bërëbu liggéeykaay la woon ma ñëw fa doon liggéey en tant que employé wax naa ko fu nekk man liggéey naa Ramadan bi ma commencé xam li may fayeku Ramadan wala Ramadan li muy fayeku motul huit ans. liggéey naa Ramadaan ba sam papa di ma jox la musuma xam lu may fayeku musuma xam la fa musicien di fayeku Zénith de Paris joué naa ko musuma xam lu cachet mel te bu saa bu ma liggéey ba pare musiciens yi ñu ngi may dégg man may fay musiciens yi sam dama ko wax ne dama bëgg sama tarbiyu bi bu ma ko yàqal yow loo am téyel man lu ma am ñu bokk ko cest lu ma nit mësaan may ci scène bi dama koy dajale tak tak tak sama contentement moo doon ah naka musicien ma ne waaw fay naa hôtel yëpp ku ci nekk jox naa la sa per ne waaw góor sekk waaye li conte manque beaucoup trop beaucoup trop sama papa mosuma wax merci benn la mos wax merci deux jours avant muy décédé damay génn ci hôpital bi ma dem mu ne ma waali ma ne ko mu ne ma merci ma ne ko ah, papa déet ñoo mu ne ma déedéet waali jërëjëf lenn rek nga ma desel ma ne ko waaw mu ne ma génne ma fii. capital mooy loolu mujjee wax ma moom. génne ma rek nga ma desel génne ma fii génne naa ko fa yóbbu ko fi ma ko war yóbbu muy bàmmeel. you est-ce que duñu. <laughs> alors dañuy dem feneen dañuy génn feneen parce que xam nga woon. Mm-hmm. Ramadane employé laa fa woon. yàlla di dogal may jouer ñaari morceau wàcc deux personnes ñu ci piste bi. moo koy def noonu nànk-nànk jour bi ma décidé ñëw sama papa ne ko damaa bëgg def sama soirée bopp daf ma euh, xam nga boîte bi ñaata ngay fay. Mm-hmm. mu ne ko déedéet mu ne ma temps laa la koy loué. Euh, xam nga musiciens yi li ñuy fay ak ko déedéet xaw ma ko de mu ne temps nga leen di fay mu ne ko d'accord naa noonu laa commencé di def sama soirée bopp. damay fay boîte bi fay matériel bi fay musiciens yi. ah bon rien n'est facile à mes débuts facile. mais boo taxawee ci kanam nga xam ne fi nga taxaw nii yow sa papa moo fi daan taxaw. ñoom ñu nekk sa ginaaw ñi daan nekk sa ginnaaw papa yow ban bët nga leen di xoolee sa bëtu papa bëtu frère wala sa bëtu say employé. no non non non. tàmbalee ci chef d'orchestre bi may tàmbalee bi may tàmbalee man employé woon employé laa woon comme man actuellement. Mm-hmm. ci salle bu xat ba rek. salle bu salle bu 15 personnes. samay frère lañu répété rek waaw. papis père sax laa koy wooyee. Mm. le chef d'orchestre père laa koy wooyee. yàlla xam ne du sigi xool ma. Papis, quand je suis malade il est malade pas bien il pleure ñëpp xamee nañ ko loolu Cheikh Anta may sama tëggkat daf may xool di jooy day tëgg di ma xool di jooy xaali ñoo ma gën a bëgg dañ ma bëgg en fait dañ may dama yàgg dama dama màgg ak ñoom ay frère dama màgg mais say frère nga xool leen ñoom ñëpp ñu nekk say frère ambiance bi am nga xool ci benn frère boo xam ne nee na il n'est pas content tey en tant que <laughs> frère. aywa yow en tant que frère tey. tey situation boobu tey. ay aba ay aba ngi ci biir Ramadan daan ngi ci frère yi. frère bu ñu génn frère yi. ay aba lay am. moi je suis pas Dieu. sa biir kër sax da ngay am da ngay nekk sa soxna nga tooñ ko léeg-léeg du mu frustré fépp lay am. moi je suis Dieu. mais en cas de frustration Wally yan jéego lay def. alors euh, sur ce bijou. So, ne répond jamais. waaw way naa ko. kon Wally préfère chanter soo ko meree répondre je préfère. woo ko laaj ko lan moo xew. am na question bu la Bijou posé sànq par rapport ak sa papa est-ce que sa papa il te manque léegi man damay jël même question bu posé le ko est-ce que Ahmed il te manque. est-ce que Ahmed me manque. Écoute, euh, Ahmed c'est mon grand frère. man nag du ma fowuma ah. damay wax li ma yëg. c'est mon grand frère. il restera toujours mon grand frère. dama ko fekk ma nekk suma waajur. ah Ahmed léegi. du sa non xaaral waa leen nànk tuuti rek aywa def leen nànk. ak dama ko fekk ma nekk suma waajur. ñëw fekk ak suma waajur. mu bëgg Papa Thione. d'accord alors dogal na. ma dem ba téye groupe bi yàlla jiital ma il restera mon grand frère ah. mais il va rester tout le temps mon employé aussi mm-hmm, mm-hmm. loolu yàlla dogal oh la yàlla dogal I love you so dogal donc euh, vraiment pour man ce qui de ce qui doit se passer loolu entre man ak la yon yoonu public bi newu ci waaw pourquoi Wally ku ko mere rek dem ci réseau sociaux yi I don't know waaye man léeg-léeg ñu tooñ mu tooñ ñu metti sama gars yi te du ma. mais monsieur du ñu de Paris. ah ñu ngi ci débrief ah, mais débrief la question ba nga wax. Eh parce que dañuy naanuñu te kenn yëgul xiif man dimanche a tëdd. waaye doom de Paris. Mhm. ñi ñu ngi wax rek. waaw mais yàlla xam na ni xool naa ko moom yërëm ko. xam nga lu tax doful xam na ni am na ay melomaan yu ñuy déglu est-ce que xam nga ni Dôme de Paris joué nañ ko ba mu jeex te amuñu line mhm. doo ko gis parce que bijou dafa masqué boo xoolee fi mu jam lumière yi foofu ay place line la waroon nekk on nous a fait beaucoup de faux bons ku ñu matériel bu ñu jël boo ñëwee ba ci heure bi nga war a ñëw rek nga fay sa téléphone Bijou xam na ci dara. mais force bi lan la woon après. 14 heures la ñu am sono. 14 heures 14 heures 14 heures. à 4 heures du matin ci la ñu am. kii la ki ñu wax ki ñu jël le 3. Mhm. moom il est surbooké. da doon dem parce que dafa am yoraan garas bu fa amoon. Mhm. dem nañ ba Allemagne pour wuti matériel bu ñu teg doomu de Paris. ku ñuy woo bu ñu jéggoo ci kaddu nga ne yaa ngi ñëw. doo ñëw doo ñëw. à 13h lan moo nekkoon bi. 14h. ma ne moo nekkoon mot wax nañ koo ma ne ko mu ma moom abo la may wooyee bu nekkul fenn. Mhm. abo ma ne ko abel ma ne ko bu dee cinq ñoo fay nekk dañ leen koy mbalaxal su fekkee benn retour moo fay am dañ koy joué. mais par rapport ak pression sociale bi gars yi doon teg ci. dafa war a dafa war a annulé waat dafa war a annulé waat pression boobu ñëw hormis pression sociale. Euh, je pense que je suis apte bokk naa ci ñi apte pour wax ni que. il sait même pas lan la perte ak lan la gagné ci doomu Dóor xamu ko ba muy taxaw di wayal Sénégalais yi xamul moom ne que du ñibbee dara moom la. Ah, waaw mais loolu c' était prévisible Bijou. c' était évident on a non quand on a va reporter xam nañu ki jëloon décision ñi xam Roland.